kon dañuy ziarewaat rek mbokk yi ànd ak ñun ci eh, sunu quartier général bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci place de la nation depuis dimanche le deux ba léegi ñu ne fi fas yéene nekk ba le 29. Eh, yàlla dogal nag ñu taxaw ak suñu doyen di suñu président muy président programme ak eh, discipline ak programme muy commission boo xam ne jàpp naa ne mooy ki ŋànk liggéey bi yëpp ndax xam nañu ne. mbir su fekkee nosuwul tege ci yoon ku nekk yam fi mu war a du mën a sàmmonte ak àqi kenn ku ne ci mbooloo mi mais suñu amul programme tam duñ mën a dox pour dem tey sëñ Sidi suñ bëggoon xam euh, lan mooy programme ak disipline lan ngay wax mbokki Touba ci kanam yi nga xam ne ñu kii na réew di la sëñ Sidi. jërëjëf sëñ Babacar xam naa danga maa bëgg a wax loo rek mais mënoon nga ko wax ndax maîtriser nga ko <laughs> bu baax a baax wax dëgg yàlla. di nuyu waa Touba ci kanam yëpp di leen ziare rawatina waa diaspora bi nga xam ne suñu xel a ngi ci ñoom ndax damay wax ne picc a nga ca kaw waaye xel maa nga ca suuf ñoom ñëpp tey seen xel ak seen xalaat mi ngi Obélisque yàlla na nu yàlla boole dimbale te événement def xéwal ba bu événement yu mel nii di amati mu leen fii fekk ñu koy fekkee ñu koy bokk di dund di ko vivre sëñ Babacar discipliné programme wax dëgg yàlla lu kii la comme ni nga ko waxee am na solo ci liggéey bi waaye itam nag lu metti la nag. te defe naa ne mën nga ci seere ndax li tax mooy ay mukallaf yoo xam ne nii kenn ku nekk bokkuñu fu ñuy yaroo bokkuñu fu ñu jógee bokkuñu nu ñuy xalaatee ba noppi nag ñu bokk benn mbir nag mbir moomu nag ñu tënk aw doxalin nag doxalin woowu ñëpp war cee dox loolu mooy problème bi nga xam ne ni moom la discipline di jànkonteel bu dee programme bi moom amul solo ndaxte programme bi sax néew na ay violation ndax nit ñi teel nañ koo comprendre ba lu ñuy war a kii lu nekk bu ñu ko indee ci programme ak discipline bu ñu ko saytoo bu ñu nee war naa dugg rek mu dugg suñ nee warta dugg itam ñu daal di xam ne warta dugg leeral leen lu tax warta dugg ñaare dañ ciy d'accord mais problème jafe-jafe bi ñuy am dëgg-dëgg mooy violation yi ci discipline bi waaye nag itam xam nga rek kuy liggéeyal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moom moo nu jaral lépp daal. bëggoon naa laaj benn question ndax yow yaa tànn yore discipline ak programme ndax dafa difficile. wala mbooloo mi ñoo la tànn bi la tànnee tam lan moo tax nga engagé pour nangu loolu parce que dama gis ne euh, commission bu naqare yor la. jërëjëf Babacar loolu nga wax dëgg la commission bu naqare yor la ba ñu ma tànnee damaa bañoon sax ñoo ma tànn mbooloo mi ñoo ne ma yaa ko mën a yor di ci njiit li surtout sax suñu deuxième personne morale muy sëñ Laat Abibu dañoo wax rek mu daan ne Sidy Seck mii mën na koo yor. ma ne ko yaa eh, déedéet sëñ bi nañ ki mu daan ne man nga ko yor ñëpp daal di ne man nga ko yor unanimité ma bañ ñu ne ma daal faw nga jiite ko. ba ma ko jiitee itam loolu nag mooy deuxième bi sax après ensemble mais lu jiitu dama ci nekkoon membre nii rek mais nag ñu joxoon ma génne ak dugal. man ak benn élément ma Ndiaye Ngom dafa mujjoon am temps nekkatu ci woon moom fi mu ne nii daw na nu nga ko dellu si waat ci ci kii bi waaye mi ci liggéey bi activement allah mais nag booba nag la metti woon lool nag ndaxte da ngay génne nit du ñu comprendre te may itam ma doon ko exercer noo xam ne nii. xam nga rek gannaaw aw aw sart la yu ñu teg. ku mu dal sa kaw rek ma dal sa kaw léeg nag mu dal ci kaw kilifa. léeg mu dal ci koo xam ne itam day jàpp ne daal wax dëgg yàlla. maanaam waral nañ ko may lu ñu mayut ñëpp. alors que man nag ma doon ci doxal yëfu américain rek maanaam. def ko caabi daal gannaaw bu ëppee du tijji bu yéesee du tijji ma koy def juste ci digg bi rek loolu moo ci doonoon jafe-jafe mais bi assemblée générale bi ñëwee nag ñu ne nag ñu def ko nag commission boo xam ne boo ko programme ak charge ñu ne nag itam faaw naa ko jiite fekk bële sëñ Fallou Bousso moo ko njëkkoon a jiite jamono yooyu moom itam mu ne ak wér-gu-yaramam mayatu ko nañ ko may mu kii ñoo ngi koy ñaanal mu rek ak dellu si waat na sax mm. waaye ñu daal di may ci lañu ma defe nag ma jiite ko comme ni ñu la defee nga yore bu Europe bi te di ci liggéey liggéey bu am solo bu diaspora bi di ci liggéey liggéey bu am solo macha allah mm-hmm. nga ko waxaale gaañu. Eh, jërëjëf euh, Serigne Sidi Seck kon moom mu nekkoon kenn ci kilifa yi nga xam ne dañu yore liggéey bi mais dinañ ànd ak euh, beneen chef de commission ci liggéey bi ndax bëgg nañ kenn ku ci nekk ci ñoom ñu mën ñoo présenter li ñuy def.